1976 ba léegi ñi ngi fi ñenn ci suñu yaay yi nañu bi ñuy ñëw fii liir bi ñu yor weer lañ am bi ñu duggee léegi ci biir fekk nañu liir yooyu am ñeent fukki at ak lu teg kon ku mel noonu bu bàyyee limu am yépp nga seetsi ko mu bàyyi taabalam ñëw toog sit tànt di la déglu gàcce ngaalaam maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne du ngeen ma gën a gore ndax nag seen doom la te wax yi ngeen fi wax dama ci xam lu bari ndax tollu naa nekk étudiante di jóge Tëngéej di ñëw fii biir dakaar waaye bu ma doon xëy oto yiy jóge Sàngalkaam 4 heures du matin ay jigéen rek nga ciy gis boo demee marché Castor oto yiy ñëw yëpp fajar jigéen ñee koy ran ci wetu église bi boo demee marché yi ca pàkk ba fa nga xam ne ñi ngi tabax marché bi yeggagul camion ya fay taxaw di wàccee légume jigéen ñi rek a fay fees kon may dalal xel ndax am na soxna su jug sànq ne enquêteurs yi ñëw nañ fi daaw enquête table bu ne waaye ba léegi gisuñu financement ma leen di wax nag nañu daw ndax enquête yooyu biñ koy def 111 marché yi nekk région de Dakar yëpp la ñu dem données yëpp ngi ñu ngi koy traité te enquete boobu ministère moo ko def de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire lu tax mu def enquête boobu président Macky Sall dafa yëkkati ministère bu ñuy wax microfinance ak économie sociale et solidaire ne lenn rek laa si namm képp ku jóg di daan sa doole na la doole état fekk fa nga ne kon buñ koy defal liggéey boobu te réew mépp war si bokk dañu koy jël def suñu temps ndax bi ma nekkee ci bopp ministère beeg léegi li ñu bëgg soppi ci microfinance mooy nit ñi foog ne dañ ngay ñëw ñu jox la xaalisu état nga dem ak moom boo waree fay doo fay loolu foog mu dañ li tax mu war a dañ mooy ñépp a soxla koo puus mu dem comme koo puus mu dem nag ku jiitu bu demee ba fa mu yem dafa wara a ko ca gannaaw moo tax liggéey bi ñu fas yéene def ci ministère boobu dinañ ko saytu jox ko temps bi mu war a am ba lépp yem kon na seen xel dal ne du intermédiaire yu leen di nax lii ñu fi ñu teg ñu tànk ci liggéey bi dañ koy def liggéey bu set ndax kañu ko sant moo tax kañu ko sant dafa jël yërmande teg ci kaw askan bi kañu ko sant dañuy toog ay nit dañuy toog suba ngoon guddeeg bëccëg di teg ci deram lu ñaaw te du ne um kañu ko teg mooy koo xam ne subaak ngoon guddeeg bëccëg du noppalu lépp ngir dago dawal njaboot te njaboot gi muy dawal mooy Sénégal kon bu ñu nekkee ay ndawam nekk ay jëwriñam danañ def liggéeyam bu set kon na seen xel dal may ñëw nag ci sama tur ak ci turu ndey màggetloo bi nga xam ne moom mooy tête de liste proportionnelle Benno Bokk Yaakaar Sicap Liberté ñun ak mboolem investi yi nekk ci list bi ak mboolem responsable yi nga xam ne ñoo ne ci coalition Benno Bokk Yaakaar ndax responsable yépp a ngi fi dëgg la dañu jiite list bi waaye list bi ñun ñi ko bokk ñépp ñooy bokk tënku ci benn buum gi nga xam ne mooy engagement yi ñuy jël moo tax fu ñuy dem ñoom ñépp dañuy ñëw ndax ñu déggandoor li nga xam ne ñu ngi ñu koy wax kon ci suñu tur ñi ngi nuyu ñi jël kàddu ci turu marché bi moo xam Paa Aw la moo xam Aïda Camara la moo xam Hélène la moo xam Ami mbay la moo xam Marie Baas la moo xam Moussa walla amadu Sarr seen kàddu rafet na seen yaakaar yaatu na waaye ñu leen di wax ne 76 ba léegi bu fekkee ne ñi ngeen doon tabb it Sicap ñu dëkk gëm naa ne duñ fi yeewoo ndax buñ fi doon yeewoo di dugg fii ngeen ne duñ leen yónnee ñaari brouette ñun nag dañ leen fas yéene yónnee ñaari brouette dañu fas yéene xoolaat nu ñuy restructurer marché bi ndax njaboot gi yëpp ci biir marché bi la ñuy ne te table yi boo ko gisee faw sa yaram daw ndax ku la ne ci table bii laay toog suba ba ngoon di jaay ngir dundal sama njaboot nga yor li nga xam ne état bi da ko moom pour yéen askan bi dama neen waxuma la mairie bi sax waaye ministère bi dina delloo foofu dara ci biir marché te dama koy tàmbalee ci calebasse yi calebasse yi fi nekk yëpp dinañ ko subvention te nag nit ñi dañu tiit rek ndax dégg naa ci fan yi ñu naan Zahra Iyane day def mensonge d'état ku mu dig financement du ko ko jox ma ne ku àttana jóge dakaar daw ba Ziguinchor ñaata kilomètre yéeg ci gaal def ñaari waxtu ci ndox mi ñaata kilomètre pour dem naxi ñi ne foofu ne dama leen di financé te duma leen financé bu dee naxaate rek kon ma yem si yéen dama ne dëkk bi réew mii di Sénégal dañ ko bokk kenn ku nekk war ci am taxawaay bu rafet ndax politique day jeex te bu politique jeexee nag ñun nit ñi ñoo fiy des te li ma dégg ci suba ba léegi bi ma duggee ci marché bi mooy dañ ñu yàgg nax nit ñi dañuy ñëw wax seen wax ndax dañu soxla bu ñu paree dem ñun nag xam nga lu tax bu ñu ñëwee duñu wax suñuy wax dem ndax ñiy ñëw ci yéen benn rek la soxla benn pal ñun soxlawuñu benn pal ay pal lañu ñu soxla kon bu fekkee ne ay pal la ñu soxla nag du ñu leen nax li tax ñu soxla ay pal mooy àdduna bi dafa jaxasoo yëpp réew yëpp a yëngatu kon suñu réew loxo yiñ koy teg dañuy xam yan loxo la ndax bu fekkee ne dangay jël koo xam ne saay bu ubbee gémminam ne danaa la faat gis nañ ko fii maire yoo xam ne ñëw jiite seen communauté boo leen naan prit dañuy génnee fetal ndeyjoor génnee fetal càmmoñ ku romb ñu dóor bal ñu taxaw ne waxuma la commune bi may jox leen ñu Ndakaaru waa Ndakaaru di ngeen ko jox ku mel noonu dinañ ko jox koo xam ne day téye fetal day joor téye fetal càmmoñ waa ku téye fetal lum ciy def ku téye fetal lum ciy def xam nga ñun lan la soxla ku ñëw toog di wax ak askan bi wax dëgg moo tax du ma fi dige dara ndax lu ma fi dige ëllëg ak si biir damay bañ ñu ne da ñëw wax ndax danga soxla ndax nga ñu dem waaye li ma mën jël engagement mooy du ma daw du rax te bu ñu joxantee loxo dinañ ànd liggéey suñu sikaab ndax sikaab la am te nag ci kaw liggéey boobu foog ñu organise ndax boo seetloo lu ñëpp soxla te amoo lu mën a doyal ñëpp ndax suñu borom mi am mën dafa bind te yemalewul bu ko neexoon mu jox ñu ñun ñëpp mais joxuñu ñun ñëpp loolu li muy indi mooy dañu war a organiser wu moo tax mu naan na nit ñi am solidarité kon organisation boobu foog mu am ci biir marché bi moo tax projet bi bi ma ko président tailleur yi di wax léegi ci biir daf ma ne déposé nañ projet ci yéen projet wu 15 millions mais jotaguñ ko dañu bëgg def mercerie ndax marché bi amul mercerie mais bi ma visité marché bi compté naa au moins 4 merceries kon li may wax tailleur yi parce que dinañ ko financer artisan yi dañu am wàll ci affaire kon dinañ ko finance mais li ëpp solo mooy ñu organiser wu tey bu ma bëggoon dugal ci calebasse yi du mat ñëpp te sama sama xol mayuma maire yi ma romb ñuy toog di jaay seen nebadaay yu ndaw wala ñu teg seen table teg ci seen bisaab bu tooy wala ñu teg ci kong yi teg ci jën bi teg ci tàmbajang bi teg ci géej bi teg ci sunguf bi teg ci ñebbe bi teg ci cere ji duñ leen jàppale dañ koy dañ leen di jàppale mais foog ñu organiser wu ñuy organiser woo nag dinañ ko xool kon délégué aw maa ngi wax après délégué yi ak président kuréel yeeg kalabaas yi ne ñu ñëw ñu waxtaan ñu indiqué appui yi naka lay demee mais déjà quatre yi moom jàpp leen ne subventionné nañ ba pare te lii may wax di ko waxee fii du waxu campagne ndax saa bu ma génnee tase koo xam ne ma ngay daan dooleem loo xam ne wóor na ma ne njabootam ca gannaaw li ma président Macky Sall dama koy def mooy texe ba ndimbalu état yegg si si moom kon du ma ñëw ba dugg ci marché bi fekk fi jigéen ñu jàmbaar yu mel ni yéen di liggéey te duma leen jàppale kooku bu dul woon campagne sax ñu def ko massamalaak nag leneen li ci des nag mooy commune bii ñuy wut soxla ko am nañ ci juróomi axe prioritaire yoo xam ne bu ñu jëlee commune bi loolu lañu fas yéene ànd ak yéen liggéey am na ci benn boo xam ne nag dina leen concerner ndax mooy gestion de l'environnement loolu foog ñu xool ak yéen marché bi naka lañ ciy taxawee wax ngeen juuti bi wax ngeen proximité bi wax ngeen également salubrité bi nga xam ne loolu yëpp bëgg ngeen ñu bàyyi ci xel dinañ toog xool ko dinañ toog xool ko xam luñ ciy def mais li nga xam ne daal bëgg naa ngeen jàpp mooy ni ngeen fas yéene jël commune Sicap Liberté teg ko sama loxo nañu àndandoor jëlaat département Dakar teg ko ci loxo le ministre Ablaye Diouf Sarr ndax Dakar dafa feebar dakaar bi ko suñu yaay ji yoree ñu jàppoon ne dina am lu ci nekk ak luñ ci def ñoom lañ ci def mooy xeexal maire bi nekk bi nga xam ne dafa jënoon dafa jël xaalisu askan bi ñu jàpp ne ni ko jëfandikoo du noonu kon day jaadu ñu faj ko waa jëwrinu fajkat yi bu fekkee ne moom mooy laaj Dakar kon kay yëf yi jeex na jëwriñu fajkat Dakar dafa feebar jëwriñu fajkat yi taxaw ñu ne moom la war a jox Dakar kon kay lu ci des lu ci des boote moo ci des ñu yëkkati mairie ville de Dakar jox ko ko ndax aussi xam nañ commune boobu lu mu am en terme de moyen pour mën ko indi ci biir commune yi nga xam ne ñoom ñoo composé département bi te Sicap am lu bari lu mu soxla ndax dëgg la assainissement am na tuuti problème mais voirie bi nekk na problème maison yoo xam ne jeunes yi dinañ ci mën a nekk nekk na problème mais surtout dépendance bi nga xam ne gis nañ ko ci suñu jeunesse bi aussi nekk na difficulté yoo xam ne loolu yëpp bëgg nañ ci indi taxawaay waxatuma la ak employabilité des jeunes bi kon tey ñi ngi ci axe bi ñuy wax la solidarité communautaire économique solidarité communautaire économique boobu dafa bokk ci axe yoo xam ne jàpp nañ ne dina booster l'entrepreneuriat des femmes mais dina booster également l'entrepreneuriat des catégories socio-professionnelles kon nag li fi ne mooy woykat ba démb moo ne woon maire xale ministre xale joob joob bu dëgër loolu la ñu soxla joob dafa jot joob joob bu dëgër job job bu dëgër maa leen di sant di leen gërëm jërëjëf